waaw waaye xanaa kon day fay day fay safara ak àjjana ndax bu fekkee yow njub gi nga jub yàlla la ko forcé moo ko dem àjjana dootoo ko mën a yeyoo ci kaw ay loi dem safara kenn du ko mën a kenn du dem safara sax ko te yàlla dafa sàkk àjjana sàkk safara sàkk dund sàkk dee ne damaa sàkk nit andi ko ci kaw suuf ngir nattu ko ngir nattu ko xalaqal mawta wal xayaata liyabloo ko yàlla dafa bëgg doomu aadama def lu baax lu ko mën a yóbbu àjjana ci coobareem mbaa mu def lu bon lu ko mën a yóbbu safara ci coobareem ginnaaw nag doomu aadama mënul jàmm mënul ay mënta def mënta dindi yàlla mi koy sant mu def lu baax def lu bon moo ko xaw a defal kon moom lu ko war li ko war mooy sabablu doomu aadama day sabablu nekk ci yoonu àjjana day sabablu nekk ci yoonu àjjana mooy lan na gëm yàlla na gëm mboolem yàlla gëmlu ci téere bi na jëfe alquran ak sunna nay jàpp nay julli nay def lu baax ci aw làmmiñam nay wax lu baax ci aw làmmiñam di ko def ci ay cëram na ko jàpp jàpp xolam na nekk ci yoonu baax bu ko defee yàlla gindi ko wala nag mu sabablu yoonu safara ci coobareem di def lu bon di sàggane julli wala sax mu weddi julli sax def lu ko neex wala muy julli nu bokkut ak nu Seydina Muhammad daan jullee muy yoonu safara joo xam ne moo ca jaar ba fu ci coobareem yàlla bu ko neexoon kay mu forcé wuñu ñëpp ak njub waaye nag yàlla forcé wuñu ak njub forcé wuñu ak njubadi moo nuy bindal nag yàlla mooy bind ak njub ak njub door a mën a am mooy bind ak njubadi ak njubadi door a am waaye bala ma koo bind da nga koy jëkk a saw amma man aata wa taqa wa saddaqa bil husna fa sunu yasiru mu ngo kon boog da ngay sablu da ngay dogu yàlla dogal la nga dogu nga dem ajjana mbaa safara ci kaw dogu goo ko dog do ci kaw dog goo ci dog da ngay dogu yàlla dogal yàlla dogal gu mu dogal moo tax mu am waaye nag dog goo dogu moo tax mu dogal ci kaw dog goo dogu nag ci nga dem àjjana mbaa nga dem safar foofu ndax leer na wala déet aywa lu baax ak lu bon ci loxol yàlla la nekk yàlla mooy wéral mooy wéradi mooy tege jàngoro moo santaane ko faju waaye nee na na ngeen fajoo nii te bu leen fajoo nee ba tey natt bi rek moo doon wax rek moo ñëwaat defal lii te bul def lii yàlla day fekk ñaari jëf bii kaas ndox a ci nekk wala esbar bu sedd bii kaas sàngaraa ci nekk bu sedd boo ci naan soo mar deñ mun la naanal esbar bi soow mi te bul naan sàngara si nga sabablu ci naan espark wala soow mu doon ak njub sabablu ci bàyyi fa sàngara ak ñoll mu doon ak njub nga yeyoo ci àjjana wala nag nga saggal jaar fi la neex jaar fi neex seytaane dem di ñaan naan aw ñoll di naan sàngara bàyyi fa soow yàlla yóbbu la safara inna hadaynaahu sabila imma shakiran wa imma kafura yàlla wan na la ñaari yoon yépp yoonu njub ak yoonu njubati amuñu nag wenn yoon woo mën a dox te du yàlla la teete waaye nag yàlla kat bu lay teete ci du la tànn dalay bàyyi nga tànn ba jéem a nab nabi pour jaar ci yoonu ndeyjoor mbaa yoonu càmmoñ woo ca jéem a jaar nag moo xam ne wii nga bëgg mu teete la ci kon nag ki feebar di faju dafa am aw faju win wu sariya nangu muy garab yi docteur wala garab yi li ñuy tuddee médecine traditionnelle te mooy nga jël ak garab garab bu sax ci àll bi dagg reen ba def ko sunguf di ko naan mu nga di ko naan wala nga xob ya def ko sunguf wala nga def ko ci ndox di ko naan loolu mooy médecine traditionnelle wala nga boole ay produits chimiques ndegam ndegam garab docteur la di ko jëfandikoo woowu fajuwin dafa da yàlla da koo indi sàkk da koo sàkk indi ko daganal ko am weneen fajuwin te mooy ak njabar ren boo xam ne bi yow bi nga koy dog da nga koo dog ci kaw yéene lii ak njabar la ba tax na dafa am loo ko jënde da nga wut dayu mbaam mbaam mbaam ngóog waaw da nga wut dayu mbaam ngóog wala nga wut mbott mu dee xaw ma nan yow dem jublu saw moom nga ko jënd waaw bu ko defee nag boo fa bayee bu fekkee reen bi bu fekkee garab garab sàngam ak nga nekk ba bisub sàngam bu jublu garab sàngam wax nangam ak nangam jat ko boo ko takkee rek mu nga nangam ak i nangam yenn saa yi suñu borom yàlla day jëy ab jabar yenn saa yi nit ki day jëfandiku ci nuuraaniye ci ñaan yàlla jëfandiku ci ñaan yàlla ak turi yàlla yi ak ak ak ñaan yu sell yu leer yi faj faj faj faj du wér ndax lan ndaxte sell gi tax sell gi tax nga mën a am tafaaul ak ñaan bi sell goo gi daa amul ci yow boo ko defee doo mën a génn résultat bi jabar ba nag appliqué na loi naturelle ci ak njabar na mu war a ak mbon dong la laaj te mbon daa yomb jabar réaliser loo xam ne nituk yàlla mënu ko réaliser nga bàyyi fa nituk yàlla gëm ab jabar déedéet lee daa dagan lee xaraam li nga xam ne nituk yàlla kii mënu ko demal ci docteur wala nga dem ci keneen nituk yàlla koo xam ne mën naa def tajaawub ak tur yàlla ak ñaan ya mu yor tur yàlla itam jublu ma ci suñu sariyaax boo xam ne bii day doon ab xaatim mu ngoog di di di di di def ay njaaxum ka di tanaka tappalee ka mu ngoog sariyaax li mu yàq ci ay jikko bari na lool li mu tas ci mbokk bari na lool damaa bëggoon nu jàng sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nu mu daan fajo am na ab xëbbu nabawi imam Ghazali bind na ci téere mu ngoog am na ay ñaan yonent bi di di di ñaan allahuma rabba nnaas adhibil baas ishfi anta shafi mu ngoog ñaan am na ci saxaaba yi ñi nga xam ne ñi dañoo doon tukki dem ci dëkk fekk fa ku jaan màtt ah dëkk bi amul kenn ku mën a lugg jaan ñu doon ci penc mu ñoom saxaaba yi fekk sax dañoo jëkk a jaar ci waa dëkk ba bëggoon waa dëkk ba gànnale leen waa dëkk ba bañ ñu toog ca garab penc ga nes tuuti yàlla natt waa dëkk bi borom dëkk bi la jaan màtt kenn ku mën a lugg amul ci dëkk bi ñu ne nañ laaj gan ci penc bi ñu dem ca saxaaba yi laaj leen kenn ne waaw man ne mën naa koo lugg waaye nag da ngeen may fay ndax damaa danoo laajoon ak nga ne la ngeen bañ da ngeen may fay ñu ne lu ngeen bëgg daal ñu ko jox su jaan ji wàcc saxaar ba dem daal di tiim fi jaan ji màgg أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فاتحة جو أجم تابل جنان بجان جوات فاتحة جو أجم تابل جنان جان جوات كوكو من تنون تنون تي فاتحة جنان ولا تنون لا تنون لا سوادا ما تي تي سرين بمنتلوك تي فاتحة xamal ne sëriñ bi dafa deful tajaawu ak fatiha lu tax fatiha daa am nu mu mel dafa sell dafa leer dafa kawe nit ki nag daa bëri ay melokaan dafa bëri ay yëngutu day jëm kanam ak jëm gannaaw jëm kaw ko jëm suuf moo tax yenn saa yi communication bi war du am boo ko fa bàyyee nag dem ca jabar ba mu mu mu defal la ay xaawam ak i sungufam ak i pettaawam yu xaram yooyu boo xatta boo ca jëlee ak wér te mën nga ca jëlee ak wér ndax loi naturelle la waaye xatta boo ci jëlee ak wér keroo la gën a xaraam loo xam ci koo xam ne kii daa mar day dem ca bitig ba jël bu kii spark wala mu jël gazel bu sedd naan ba mandi am day jël escorte bière am bu mu am bu mu jël man ni bu mu jël man gis ñu laay kan na tere ne ne wéral yàlla mi ko def mu mën a wéral moo ko xaraamal ngir ñu nattu ba xam ndax daanu fi bàyyi li nu bëgg te yàlla tere ko ngir suñ ko fi bàyyee te dem ci li yàlla bëgg moo indi nu nu dem àjjana suñ defee li yàlla bañ ndax dañ koo bëgg mu daal di nekk buntu dem safara mu ngoog loolu nu yemale foo bokk te no
ak xamu lu muy firi di nga ci am tuyaaba wala déet waaw ñetteel bi mooy ku majeur te du julli du woor lan mooy attee
الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم koo xam ne kii bu bu dee tukki du julli ba muy ñëw soo ko waxee mu ne xam naa li muy def ah xanaa dana war a wax kay li muy def ginnaaw nee na xam na li muy def fu mu ko teg dana war a wax fu mu ko teg li nu xam mooy kuy tukki daa war a julli daa war a julli sañ na nag ci biir tukki bi feet mu ñibbisi julli bu nekkoon ñeenti rakka mu def ko ñaar kon tisbaar mu koy def ñaari rakka ak takkusaan ak gee timis moom mu julli ko mu mat comme na mu ko daan jullee ci kër ga ak fajar loolu moo war a am sotti ko lenn nag lu jóge ci yàlla wala mu jóge ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu mu wuteeg loolu luy may nit ki mu bàyyi julli ci jamonoy tukki mbaa jamono yu dul jamonoy tukki amul kon nag xanaa fa mu ko teg kon de feneen ku bokkut ak alxuraan ak sunna te lépp lu bokkut ak alxuraan ak sunna rek baaxul jarak joo xam ne ji daa feebar ba tax mu dog ay fan ci weeru ko li doon yoon mooy bu wéree mu fexe ba fay ko ci weeru kori wala weeru diggi wala tëbaski wala beneen weer ci weeru ci topp balaa weeru koor ñëwaat bu sàgganee ba weeru koor ñëwaat te fekk faye bu ko woon lu tax bor ba wàcc ko na woor weeru ba mu jeex mu fay borub daawam mu woor weer bu mu jeex mu fay borub daawam ba am na nag ci borom xam-xam yi ñuy wax ne bu ko dee fay ni ci boole épaan bi maanaam bis bu nekk na joxe lu mat ka mudd mudd mooy bat ñaar loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu ëpp ci li mu li muy dundee bis bu wooree rek mu joxe loolu jox ko miskin ndax sàggane bu mu sàggane bor bi ba weeru koor ñu wàcc jàng alquran ah déedéet am julit bu nga xam ne bii dafa am ay jafe-jafe ndax mën naa fen dama koy tontu rek ci bu gàtt a gàtt laaj bu ñu laajoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi wax nañu laaj yonent bi ne ko ndax ab jullit dina dina nay mu ne waaw nit mën naa doon jullit lu tee mu nay ñu ne ko ndax ab jullit dina ragal yonent bi ne waaw nit mën naa nekk jullit du tee mu bindoo ragal ñu ne ko ndax jullit dina fen mu ne déedéet daal di jàng benn aaya bu yàlla wax ne innama yaftari kadiba alladina la yuminuna mu ne ñi nga xam ne ñii ñooy fen ñooy ñi nga xam ne gëmuñu aaya yàlla gëmuñu alquran kon bu ab jullit war a fay jàng alquran te xamoo lu mu tekki ndax dafa ci am tuyaaba waaw jàng alquran te xam lu mu tekki daa war kiy jàng alquran te xamut lu mu tekki na ko jàng dina ci am tuyaaba waaye rek nga xam ne bàyyi na ab war-war te mooy xam gu mu war a xam lu alquran tekki ak jëfe ko alquran dafa am ñetti marxala marxala bu njëkk bi mooy man ko jàng bu ñaar bi mooy xam lu mu tekki bu ñetteel bi mooy di ko jëfe di ko appliqué sa dund ñett yépp la julli bi war a def su fekkee daa yem nag ci benn bi bàyyi yi ci def ah tuyaabay loola njàng mi day am bàkkaar yi ñàkk gi jëfe itam day am ak ñàkk ngay xam moo koo xam ne daa majeur te du julli du woor kooku yéefar la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bayna mar i wal kufri tarku sala man taraka salata faqad kafar di nekk diggante nit ak kéefar mooy bàyyi julli ku bàyyi julli yéefar nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku bàyyi julli yéefar nga montre ba ca Passepartout doonal ab montre bu ñu defar ci ay weñ wala ay bant doonul tam loo xam ne sañ haat yi moo ko fent muy loo xam ne invention la boo xam ne moo ko doon xalaat wante ab xam-xam la bu bokk ci xam-xami jullit ñi jullit ñi sàggane ko réere ko te danaa war a wëlbati ko jàngiwaat suñu yaay yi da koo jàngoon di ko jëfee di ko jàngal noonu ñu ngi ci waa Sénégal ñun ñëpp dañuy réglé rek ci montre ci ci ci rajo bi rajo Sénégal bu xëyee joxe heure 6 heures yéen ñëpp ngeen defee seen i montre 6 heures su midee su 13 heures mu joxe heure 13 heures yéen ñëpp ngeen defee seen i montre 13 heures waaw fu ngeen ko teg ngeen ko teg. ana ku fi indi rajo bi du tubaab bi ana ku fi indi heure boobu du tubaab bi tubaab daa bari fen lool lool lool te loolu duñ ci bàyyi xel tubaab daa bari fen lool lool te loolu duñ ci bàyyi xel tubaab bi saa bu la ne treize heures jot na ci Sénégal day fen douze heures moo fi jot waxoon naa leen ko fi daaw waxoon naa ko fële ci aéroport waxtu yi nga xam ne moom la ñu yor ci Sénégal dëkku fi ma nga dëkk Greenwich Greenwich ci Angleterre foofa la dëkk waaye fii ci Sénégal hatta scientifiquement ci science yi nga xam ne moom la tubaab yi gëm soo xoolee fuseau horaire yi dangay gis ne Sénégal mi ngi ci moins un moins un mooy la mooy maanaam bu fekkee Greenwich ñu ngi ci treize heures ñun nañ nekk ci douze heures Greenwich raweenu waxtu gannaaw loolu nag dëkk bu nekk am na lu ñuy wax xista saa yi dafa lan Dakar mi ngi ci méridien dix-sept dix-sept trente Fass mi ngi ci méridien seize ci kaw loolu heure julli diggante Fass ak Dakar war naa nekk juróom benn minute ndax degré bu nekk ñeenti minute la comme ni ngeen ko xamee beneen dëkk bu soree ndakaaru wala Fass nangami degré itam degré bu nekk ñeenti minutes waaye nag teewul Sénégal moom istilaaxan ñu bokk jox ko heure bi nga xam ne mooy moins un gris rawenu benn waxtu sëñ Hadj Tour nag ca Fass yal na ko yàlla fayee yal na ko yàlla yërëm dafa génne xam-xam bu bokk ci xam-xami jullit ñi mu nekk ci téere jullit ñi ñu daan ko jàng ci daara yi bu njëkk te léegi ñun ñu fàtte ko ñuy ilmu tawqit ilmu tawqit ba nga xam ne bi dëkk boo nekk su naaj wa génnee boo fa bay ab bant samp ko fab ab mètre ñoom mag ñi bi mètre amagul seen i ndëggu ndëggu yi dañ daan natte waaye mètre bu ñu mètre amee ñu fab mètre saa boo nattee kër gi muy da nga ne centimètre nga teg ci xam ne tey jii le treize mars masalan su fekkee da ngaa génn ci naaj wi benn bant bu nga xam ne bi na guddee un mètre bu la neexee wala soixante centimètres bu la neexee bant bi guddee soixante centimètres nga natt keram muy un mètre wala un mètre dix ci le treize mars ci Sénégal Sénégal wala ci Ndakaaru goo xam ne wala Tëngéej goo xam ne mi ngi ci latitude quinze longitude dix-sept trente am na ay équ équation astronomique yooyu jaar yu gàtt pour xam jamono bi kër gi nekkee un mètre dix ci bant boo xam ne mi ngi tudde 60 ci le 13 mars 1993 jamono boobu ban heure moo war a ci montre bi gis nañ ne itam ci waxtu julli yi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jibril la ko andil waxtu yi yonent bee jëli julli juróom waaye ba mu ñëwee julliwul fajar guddi isra ak mi'raj ba yonent bi ñëwee andi julli ci guddi gi la ko andi waaye bi mu ñëwee julliwul fajar ndax lan jot na julli juróom waaye jotagul heure yi dafa toog di xaar jibril ba jibril ñëw jàngal ko heure yi jibril la ngi ñëw ci zawal zawal mooy lan zawal mooy jant bi bi mu fenkee di yéeg di yéeg dem na ba nekk ci digg jant digg digg réew mi digg dëkk bi nga nekk ñu ko wax zénith waaw wala zénith zénith la ko tubaab di wax mu nga wala zawal su boobaa ker ker bu nekk jublu na ci étoile bu ñuy wax étoile polaire ker googa na mu toll woon ci waxtu woowu moom la ñuy wax zillu zawal ci ilmul falak wala ci astronomie ker googa mooy ker bi gën a gàtt ci bis bi mi ngi dépendre ci dëkk bi nga nekk ni mu sore équateur ak jant bi tam li mu waaw ñaata degré la ci yooyu ñaari facteur la dépendre pour keeg ni muy gudde ak guddaayu bant la ker googu boo ko xamee bi mu jotee gën jaa gàttam jàkkaarloog équateur foofa la tisbaar tàmbale ci dëkk boobu ci bis boobu islam diine science la islam diine science la li nu bëgg a jiiñ islam ci ak tardé ci wàllu science ñoo ko defal suñu bopp suñu borom yàlla bi mu nuy wax heure tisbaar jibril dafa ñëw jiite yonant bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni mu ñëwee ci xadisu imaamati jibril dafa ñëw jiite yonant bi tisbaar bi jant bi nekk ci zawal zawal mooy zénith zénith mooy jant bi jot na gën jaa kaweem ci bis bi kër yëpp jublu nañ ci ci étoile polaire kër gën a gàtt ci bis bi mu ngi noonu soo ko nettee muy zillu zawal heure tisbaar foofa la tàmbalee yonent bi julli ànd ak jibril jibril jiite ko ñu julli tisbaar jibril dellu ker ga day daal tàmbali di màgg di ker gi dee màgg ba ker gu nekk màgg lu toll ne boroom ker ga la jibril dellu si woon jiite yonent bi takku sax léegi nag ki jàng ilmul falak moom moo ñu defal calcul bi ker gu nekk màggee lu toll ne boroom ker gi ci réew mu nekk ci dag bu nekk fu muy war a fekk montre bi li passé goon ci ci zawaayat léegi ñaata waxtu la ak ñaata minute dañ koy calcul dafa am ay ay yoon yu ñu koy war a jaar naka la tam ay calcul yu ñu def pour xam jënd fu muy fenk ak fu muy sowe ak bu fenk ci phase suura ñaata minute wala ñaata seconde la ñuy def fenk ci ci ci roti du njabar du kiimaan du dara xam-xam la bu am ci téere jullit yi nun sëriñ daara yi nga xam ne nun la fi tubaab bi gën a yàpp nun bis bu nekk ñu yàq ñu lu nekk nee dañoo tàdd nee na xamuñu dara noo ko waroon a mën a tiitaroo am na benn bis ma dem may may laaj waa météo yéen bi ngeen bëggee calculer ba xam jant bi ban heure lay lay fenk fekk booba gis naa ci télévision bi ak ci rajo bi léeg-léeg bu ñu joxee journal météo nañ ne jant daa ngi fekk ci heure sàngam coucher de soleil de heure bi muy so élevé mooy heure bi muy fenk nañ wax ne heure sàngam la ma doon leen laaj ci yan règle yan équation ngeen di sukkandiku pour calcul boobu xëy na ki ma ko doon laaj moo xamul daa gën a tubaab waaye dafa ma ne man loolu tableau laa ci am waaye xaw ma ko ah te man ndongo daara bi man ko jox man ko jox équation yeneen ndongo daara yi ko jàng tam mën a jox équation bi latitude longitude ak lu ñuy wax muadatu zaman soo defee calcul yi boole ko bi dëkk bu ñu la laaj ci adduna bi nga mën a xam fan la jënd war a fekk ak fan la war a sole kon nag loolu day lu ñu sàggane loo xam ne dañ ko war a xam damaa bëggoon waa saal bi ñoom ñëpp ak képp ku déglu bande bi sa montre nga retard ko mu retard benn waxtu ndax nga yor waxtu bu dëppoo ak islam dëppoo ak réew mi scientifiquement wuute ak nasaraan bi am ci ñetti tuyaaba xeexu badar borom bi tabaraka wa taala bu ko neexoon mu yebal menn malaaka mu rey waa Quraysh ñëpp waxuma laat junni bu ci ànd ñëw di jéem a sot sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu ko neexoon mu yebal menn malaaka mu rey waa adduna bi yëpp bu ko neexoon tam du yebal malaaka day wax rek kun innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun ah yàlla ma ko jox mu ne kun rek ñëpp dee waaye loolu neexu ko li ko neex mooy ne jullit ñi xeex pour islam taxaw te fekk sabab lu jullit akuk dogoom joué na rolam jullit maa dem maa dem àjjana ci kaw yayoo ko yéefar maa dem safara ci kaw yayoo ko xikma bi tax yàlla sàkk àjjana ak safara te mooy ki def lu baax def ko ci coobareem gannaaw ba ko yàlla dimbale mu dem àjjana ki def lu bon def ko ci coobareem yàlla seetaan ko mu dem safara waaye fekk coobareel nit doon defa xikma boobu moo tax suñu borom yàlla xeexalul sayidna muhammad yemalul ay malaaka yu ko xeexal daf ko bàyyi moog jullit ñi ginnaaw nag néewoon nañ doole ñoom jullit ñi ci jamono boobu néewoon doole ci wàllu ab lim bi xaysu jullit ñi ñett téeméer la ak fukk ak ñett yéefar yi di junni wala junni bi manqué tuuti gannaaw bu ñu bu ñenn ñi xaaj ji koo dem jullit ñi itam néew nañ doole ci wàllu armée ndax seeni ngànnaay doyul amuñu woon jekk ga bi ñuy génn génn ñu woon pour xeex ñoo defoon ne rek dañuy dab awu sufiyaan kese te yéefar ñoom dañoo jóge seen kër ànd ak ngànnaay yu doy am nañu xaalis bu ñu ko jëndee am nañu ay tëgg yu doy sëkk te itam dañoo ñëwoon ñoom pour xeex seen bidit ñi ci kaw ñëw dale googu la sans borom yàlla waxe malaaka yi nañ ñëw dimbali yonent bi ak saxaaba yi ndimbal la du woon dimbalal malaaka ñëw jël xa jaas yi xeex ndimbalal dalal xel la yow jullit bi boo dee def dara yàlla ne la danaa la dimbali ngir bëgg a wax yow ci sa làmmiñ ak bëgg a jëflante yow ci sa niveau tax mu ne malaaka yi dem leen ngeen ànd ak ñoom xeex leen dóor leen ngadd leen yéefari ñu dee ñu xamal ko jullit ñi ñetti téeméeri jullit yu néew doole xiif tabaroon ko yor jaas yu ñëwut suñu toggee ci kanamu junni yéefar yu am doole yor nga naa yu doy waaye jullit ñi yëg nañ ne malaakaa ngi ànd ak ñoom daf leen di doo doole di leen dolli force morale bu leen dollee force morale force morale bu ànd ak ngëm daal di gagné force matérielle bi nga xam ne moom la jullit ñi moom la yéefar yi yoroon tactique boobu la suñu borom yàlla jublu bëgg force morale ak force gëm yàlla gagné force matérielle moo tax ba joxul ndigal malaaka yi pour ñor ay jaas di xeex ndekkoon du ñu xaj ci seen kaw sàmbaram yàlla sax gannaaw bi ñu koy nettali yonent bi nee na ko maa jaalahu llahu illa bushra yàlla kat ba muy wax malaaka yi dem leen ngeen ànd ak ñun xeex yi itam defu ko woon lu dul bëgg seen xel dal yéen jullit ñi ak ngeen kontaan ak seen xel dal waaye ndimbal kat du bawoo ci malaaka yàlla daa bëgg nu xam ne du union soviétique moo ñuy dimbali du amérique moo ñuy dimbali du kenn ñuy dimbali malaaka duñ dimbali jinne duñ dimbali ndimbal fenn dong lay bawoo man nasru illa min indillah ndimbal du bawoo fenn fu dul ci yàlla ndimbal yàlla nag daa foor du sugum ngay gujug rek am ko da nga koy yeyoo ni nga ko yeyooyee sa gëm nga cay àgg sa sabab lu àgg ca nga def sa warugar ndimbal la nga yeyoo ko yàlla jox la ko nga gañe anuñ ci la bol dimbali arrahman arrahim maanaam suñu borom yàlla mi ngi fu nekk ci xam-xamam ba maanaam yàlla xam ne lépp dara teewu dara ump ko wóotewul dara fekk ne lépp lu nit di def loolu dañ koy gëm te bañ a yóbbu suñu xol ba ci di xalaat di imaginer yàlla nekk jëmm yoo xam ne ji day war a dugg ci jàkka ji wala muy dugg ci duus bi loolu tajsid la tajsim la sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf noo sant nanu xalaat ci mbindaafoon yàlla yi xalaat ci melokaani yàlla yi waaye bu ñu xalaat ci jëmmi yàlla ji jëmmi yàlla ji ëpp na ndaxte buñ ci xalaatee suñu xel da ko dul attan ba mën cee génne loo xam ne lu jub la lu aw aw yoon moo tax yàllaa ngi ci barab bu nekk luy maanaa loolu daf may fàttali rek laaj bu ñu laajoon imam malik ci fa mu doon jàngalee benn waaye moo ñëw ne ko arrahmanu ala al arsh istawa yàlla nee na ci alquran arrahmanu yàlla ala al arsh istawa yemmoo na te toog na ca kaw gàngu ne ga loolu la aaya ji tekki kii laaj nag ñëw ne imam malik damaa bëggoon nga wax ma yàlla nu mu tooge ci kaw gàngu neem googu toogoom boobu ñuy wax arsh wala gàngu neem nga nu mu ca tooge loolu la ko laaj imam malik ne ko al istiwaau maalumun wal kayfu majhulun wa sualu anhu bidaa ne ko jëmmi toog gu yàlla toog yemmoo boog yemmoo gu yàlla ci yemmoo ca kaw arsh ba xam nañ ko ndax alquran wax na ko ginnaaw alquran nee na al arsh istawa rek gëm nañ ne am na amma nu mu amee nag xamuñu ko nu mu am mu xamuñu ko mu ngoog tey laaj ji bi daal laaj ji bi daal ne ko tey muy nit nitu fitna nga nitu fitna kon nag bu kenn nekk nitu fitna nanu xalam ci melokaan yi màgg yàlla yi xalam ci mindaa ko ne yàlla ndax nu xam ne ci ay melokaanam te bañ a jëm xalaat ci jëm yàlla ñu naan ndax mu ngi ci duus bi ci jàkka ji rek la nekk yu mel noonu loolu ëpp na nan xam ne daal fu nit ne lu mu fa wax lu mu fa jëf yàlla gis na ko dégg na ko fekke na ko ki nga xam ne kii dafa bëgg as ndaw bëgg koo takk jabar jàngal na ko diineem ba léegi ndaw sa gën a bëgg diine alhamdulilah rabbil alamin perte moom amatu ndaxte yonent bi daa wax ne sallallahu alayhi wa sallam yàlla jindi kenn nit jaare la ci sa sabab moo gën alal ju dul jeex moo gën adduna yi ci biiram kon nag ginnaaw ndaw si léegi jàngal nga ko diine ba bëgg na ko bu baax moo la gën a bëgg santal yàlla lu mu jaamu yàlla rek dana am tuyaabaam moom ndaw sa dara du ca manqué ba noppi yàlla bind tuyaaba yu toll noonu tegal la loola kay nag ma ci mosal yàlla nañ ci yàlla nangul te yaatalal ma takk gi nag ah wax dëgg yàlla man danaa xam làkk kat mooy la ñun ñëpp dañuy làkk wolof bi day làkk wolof bi day làkk tukkulóor bi day làkk naar bi day làkk arab bi làkk tubaab bi làkk man baatu làkkat ci boppam laa bëgg a xam mooy la làkkat kenn xamu ko li may wax bu fekkee ni bi dafa am fii mbokkum séeréer wala mbokkum njaago moo xam ne li muy wax dama koo xamu ñàkk xam gu ma ko ñàkk xam moo tax mu di làkk fi man man tam li may làkk boo demee ci séeréer yi dëgg-dëgg yi déggu wolof xamuñu ko te koy man tam damay làkk ci ñoom nit du gën a nit ci der wala ci làmmiñ muy làkk wala ci làkk wala ci juddu li nit di gën a nit mooy ak ragal yàlla ak njub yàlla na ko yàlla may kon donc ñaari way juróom nañ ko bàyyi ñu leen bàyyi ñu sëy ñaari jullit jullit bu góor ak jullit bu jigéen bëggante bëgg sëy ñu bëgg leen a tere sëy ba ci kaw ki ki làkkat laak ah ki ki ab tëgg laak ki ab ñuwaal eh bi ci wax caaxaan rek la wax caaxaan rek la loolu dañ cee war a jéem a génn su fekkee ne bii da ngaa takk soxna soosu benn bàkkaar doo ko ci am benn bàkkaar doo ko ci am say way jur dëgg la say way jur am nañ ci yow nag waru garu orienté la nga takk ku baax nga tànn ku baax waaye nag ku baax sagir mooy mooy kuy wolof rek ku bon sagir mooy làkkat rek yonent bi kay nee na sallallahu alayhi wa sallam taxayyaru li nu tafiku na ngeen di tànn fi ngeen def seen seen loxum góor fa inna irqa dassaat ndax sidit day wàlle yonent bi nee na na ngeen di tànn seen yaayi doom ah bokkoon na ci li nga xam ne mooy droit de l'enfant ci islam mooy nga tànn sa doom yaay ju baax kon nag tànnal sa sa yaayi doom say wajur tam am nañu war a goru tànn la la waaye nag nañ la jëme fi yàlla bi jëm buñ lay tere it nañ la tere koo xam ne yàlla dafa koo terelu yonent bi jàngale na nu ñuy tànne nee na am na ñuy tànn jigéen ngir alal am na ñuy tànn jigéen ngir taar am na ñuy tànn jigéen ngir juddu am na ñuy tànn jigéen ngir diine waaye yow na nga taamu borom diine kon nag tànn ci kaw asaasu làkk wala ci kaw ab judd wala yu wax caaxaan rek la kon nag ginnaaw yow ndaw si am na diina yow ko yeneen bi tànn am nga ko ba noppi say waajur nañ la farax rek bàyyi la ndegam ay jullit lañu nañ la bàyyi nga tànn ko tegal leen bànd bi su ko aajo ndegam nangu nañoo gëm li yàlla wax ñu bàyyi la nga takk kooku ngeen sëy sëy islam am ci ay doomi jullit loolu mooy li gën yow tam nga maslaa ak ñoom wax maslaa ak waajur yi rek te xam ne waajur am na xàq was na ko wormaal loolu rek inna sama wal basara wal fuaada kullu ulaika kaana anhu masula suñu borom yàlla dafa bëgg nga xam ne suñu cër yi cër bu ci ne dañ koo war a sàmm cër bu ci ne dañ koo war a sàmm cër bi dañ ko war a sàmm ba ñaar yii li ki yàlla santaane na ko def li ko yàlla tere bu mu ko def nab bi bët bi làmmiñ wi loxo bi lépp masalan nob bi yàlla daa bëgg muy déglu lu baax te di ko te cëree di ko jëf di dégg nodd te di ko wujj di dégg alquran te di ca xalam nobb yàlla daa bañ mu dégg ay musique lépp lu xaram nobb waru koo dégg bët bi yàlla daa bëgg muy gis bindu alquran ak sunna di ko jàng di ko jëfe daa bëgg muy xool yoonu jàkka daa bañ mu xool ndaw soo xam ne si takkoo ko te du sama xaram yonent bi sallallahu alayhi wa sallama daf noo jàngal te alquran sax ko wax ni bul xool jigéen yoo xam ne bi du sa du sa maxaram du sa jabar mu ngo ñu ne ko yaa rasulullah su fekkee damaa génn ci mbedd mi teg gi sama bët teg ko ci kaw nit fekk kooku jigéen nag man jublu ma ko dama doon xoolee far si yam mu ne ko israf basaraka nga tegg si bët teg feneen waaye bul continuer di xool ba bët bi na xool li yàlla xool te mu xool lu yàlla bañ ko xool am na lu yàlla bëgg ko xool am na lu yàlla bëgg ko xool na ko bët di xool am na lu yàlla bañ ku ko xool bu ko bët di xool mi ngi mel ne rek mi ngi mel ne rek ab sàmm bi yor ay bëy aw bëy daa mën a ruur bi yow mi yor fukki bëy ak ñaar wala juróom-ñaari bëy bëy yooyu boo ko dee sàmm ci mooy ñax ba nefa mëfër ba nefa baamat ba nefa ndegal ba nefa mu lekk ba suur loolu la santa yow ñu ko dugal ci tool gerte jaamu bu dafa lekk nag